tamxarit ba ci ëllëg sa jeunesse tijaan yi nga xam ni ñoo bokk ci daayira muxtafina dañuy ñëw di daje fii ci Tiwaawan di jóge nag ci bërëb yu ne ci senegal ak ci bitim réew ngir ñëw ziyaar waaye yeesluwaat ci seen sëriñ ngir taataan li ñuy wax ay conseil ak ay ndigal pour xam naka lañuy def ba am taxawaay bu mat sëkk ci seen diine waaye naka la ñuy def tamit ba am taxawaay bu war sëkk ci ni àdduna di doxe rawatina ci jamono yi nga xam ni moom lañu ñu toll e ci wàll woowu nag ñu dajale li nga xam ni mooy CDD bi liggéey ci ak monsieur le maire de la commune bi ni toog ak service technique yi nekk yépp waaye ginnaaw bañ ci waxtaanee arek Serigne Mouhamadou Moustapha si ib Serigne Abdoul Aziz Al Amin bi nga xam ni moom mooy njiitu daayira bi ginnaaw moom it bi mu ci amee ndigalu xalif général sëñ Babacar Sy Mansour ñu jàpp nag ni événement bi at mu ne buy am nit ñu bëri dañuy ñëw Tiwaawan waaye lim bi nañ jàpp ni at mu ne tamit dafay yokk ñu war a jël nag ay matuwaay matuwaay yi ci gën a am solo mën nañu wax mooy yokk kaaraange gi kaaraange gi ci biir Tiwaawan waaye yokk tamit ci li wër Tiwaawan waaye fexe nu ñu yombalee dem bi ak dikk bi fépp fi nga xam ni daayira dana fa jóge fépp fi nga xam ni délégation dana fa jóge bu ñuy ñëw ci biir Tiwaawan ñu bañ a am benn jafe-jafe ci yoon yi rawatina nag foofu ñuy wax Pout dëkk la boo xam ni bu ñu fay romb ñaare daayire yi dinañ fa am tuuti jafe-jafe et waxtaan nañu ak gendarmerie ngir ñu yombalal leen jàll bi foofu ci Pout waaye dana am it ay daayira yoo xam ni ñoom xëy na leen gënal moo ñu jéem a jaar ci yeneen yoon pour continuer que ngir mën a dugg ci biir fii Tivaouane ah ci wàllu wér yaram yaram dañu liggéey ak hôpital maam Abdou Aziz Dabakh waaye ak district sanitaire u Tivaouane pour taxawal li ñuy wax poste médical avancé foo xam ni dinañ fa def tente waa Croix-Rouge nekk fa ñu yokk garab yi waaye yokk itam personnel bi ba nga xam ni képp ku étéo paj dana ko mën a am ci lu gën a gaaw ak ci anam yi nga xam ni mooy mucc ayib waaye ci wàllu courant bi tamit dinañ jël ay matuwaay ak Senelec pour benn dog-dogu courant bañ a am mairie bi dana lëkk lëkkaloo ak Senelec pour lépp li nga xam ne mooy leeral dëkk bi ñu taxaw ci bu baax waaye nag dañu nemmeeku tamit ni événement bi ren buy am ci biir nawet lay nekk ah ñu fàggandiku nag ngir bu waree am ndox bu bëre ñu seet naka la ñuy lëkkaloo ak sapeur pompier yi mairie déjà am na jéego yu am solo ñu ci def pour jàppale sapeur yi mi nga xam ni pour nga xam ni ndox boo mën a am ñu mën a ko manque ci lu gën a gaaw rawatina nag fi nga xam ni mooy esplanade des mosquées nga xam ni lu ëpp ca événement bi fii lay ame ci wàllu ndox mi tamit ndox bi nit ñi naan dañuy fexe SDE mu fexe ba mu am bañ a am benn dog-dog ci wàllu ndox bi waaye du tee dana am juróomi point d'eau yoo xam dana ko ubbi ci ay béréb ngir comme li mu nit ñi ñëw day yokk ngir ñu mën leen yombalal ndox bi nuñ koy amee waaye yamuñu ci loolu dinañu wut tamit benn citerne taxawal ko fii ngir ku ittewoo ndox mën a am waaye sapeur pompier tamit dinañ ci jàpp seen loxo dugal seen loxo di encadrer ñi nga xam ni ñooy nekk ci waañ yi di leen jàppale ci wàllu euh, yeneen secteur yëpp bu ci nekk jël nañ ci ay matuwaay courant bi daanu fexe ba nga xam ni du dog Senelec dana fexe ba ñaari groupe électrogène yi nga xam ni moo fi nekk mu mën a daw saa su nekk heure bu dog dog courant amee te ñaanuñu ko sax euh, groupe yooyu mën a tàkk ci saa si ba nga xam ni événement bi duñ cérémonie officielle beeg lépp du am benn jafe-jafe ci yeneen fànn yëpp jël nañ ci ay matuwaay dinañu pomp dëkk bi et pompe tamit yenn euh, kër yu mag yi ak kër yenn kilifa yi ak fépp fi nga xam ni foofu la ñuy dalal gan yi ci wàll woowu tamit service d'hygiène ñoom it dinañ ci taxaw liggéey ci ba nga xam ni pompe yi daañ ko mën a def avant événement bi am ci wàllu tamit lépp li nga xam ni mooy jëm ci set setal bi dinañ ci liggéey ak UCG euh, waaye commune Tivaouane déjà am na taxawaay bu mat sëkk ndax mobiliser na ay jeunes yoo xam ni far fas nañ ci yéene taxaw ànd ak daayira muxtafina ba nga xam ni dinañ setal dëkk bi lu jiitu événement bi waaye lu weesu événement bi tamit dinañ ko setal am nañu yaakaar daal nii ci tënk dog dogal yi nga xam ni jël nañ ko fii buñ ko toppee fii ba bañ ciy egg yàlla suñu borom mën nañu may événement bi am ci anam yu mucc ayib ba nga xam ni ni ko suñu kilifa yi bëggee dana demee noonu te li nga xam ni aussi moo ci ndigal bi nga xam ni kilifa gi moom la ci joxe te ñu fexe ba mu antu demee ni nga xam ni noonu la ko bëggee. coutume qu'à l'occasion donc de la célébration de la Ashura au lendemain de la Tamkharit que les jeunesses tijanes regroupés donc euh, au sein du Daïra Muhtafina bi Asaril Abayi wal Ajdad que ces jeunesses donc se rassemblent au niveau donc de la ville sainte de Tivaouane pour se ressourcer pour euh, effectuer la ziara au niveau des mausolées mais également se rapprocher de leur guide pour pouvoir donc recueillir des conseils des orientations devant leur servir de viatique, mais surtout devant se traduire en comportement à adopter en toutes circonstances. Et en prévision donc de l'événement, nous avons tenu aujourd'hui un comité départemental donc de développement avec les chefs de service, avec monsieur le maire de la commune de Tuad, mais en collaboration donc avec le président donc du Daïra Moustafine, Serigne Mohamed Moustapha Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Al Amir et les membres du comité d'organisation à l'effet donc de voir comment réunir les conditions d'une bonne organisation de cet événement qui draine beaucoup de monde. C'est ainsi donc que nous avons décidé donc de renforcer la sécurité dans la zone de l'esplanade des mosquées, mais également dans la commune de Tivaouane. Euh, sur le plan donc de la circulation, la gendarmerie donc a décidé de prendre des mesures pour faciliter l'accès donc de la ville sainte aux véhicules, aux différents convois qui se rendront donc à Tivaouane le jour J. Nous avons décidé d'accorder une importance particulière à la traversée donc de la localité de Pout, parce qu'il a été remarqué qu'il y a souvent donc des bouchons à ce niveau. Euh, les fidèles qui se rendront donc à Tian ont été invités, n'est-ce pas, à essayer de voir comment contourner donc cette localité. Et en cela donc, ils seront aidés par les services donc de la gendarmerie. Nous avons décidé donc de, nous avons de mobiliser 100 éléments du GMI, mais également de renforcer la sécurité au niveau donc des lieux de culte, au niveau des mausolées et également renforcer la sécurité au niveau des domiciles des marabouts. Nous prendrons des dispositions pour éviter qu'il y ait des, une rupture dans l'approvisionnement en eau potable. La SDE veillera à l'ouverture donc de 5 points d'eau, mais également une citerne sera prépositionné au niveau de l'esplanade des mosquées. Concernant donc la fourniture d'énergie en euh, électrique, donc la Sénélec prendra les dispositions pour mettre euh, ces installations donc sous en priorité et sous surveillance et pour éviter qu'il y ait donc des coupures d'électricité. Bien entendu, deux groupes électrogènes donc seront Euh, mobilisés et la SELEC veillera donc à ce que ces groupes puissent prendre le relais, n'est-ce pas, du service en cas donc de coupure. Pour le volet sanitaire, il est prévu donc l'implantation d'un poste médical avancé dans la zone des mausolées, avec l'appui donc de la Croix-Rouge, mais également la mobilisation de trois ambulances euh, du district et de l'hôpital Abdul Aziz Sy Dabakh. Les sapeurs-pompiers également prendront les dispositions pour assurer le pompage des eaux. Nous sommes en période d'hivernage et au cas où on recevrait de fortes pré euh, précipitations, des dispositions sont prises pour mettre en place donc des motopompes et assurer donc le pompage des eaux dans la zone de l'esplanade, notamment le point névralgique que constitue poste courant. mais également les autres points bas qui existent dans la commune de Tivaouane. De manière générale, donc, nous avons arrêté un ensemble de mesures pour veiller, n'est-ce pas, à ce que l'événement se déroule de manière convenable, conformément à la volonté des autorités gouvernementales, mais avec également donc, euh, la bénédiction du calife général des Tidjanes